jafandu tuma yebbu di la ñaanal iyo yaay xareeru dara Picky, picky, no, bin, yeah. aja comme dab rek aja na gaaw bul amul xerat na gaaw ay champion mais ziar nañu de waaw ñu ne yéen a ngi taxawal taxawal on travaille aja champion ziar nañu la yow mi ngi ne yaay comptable Mbaye tey ngeen ñëw ci salle bi macha allah bi nga ñëw salle bi euh, li nga xam ne mooy salle bi bi nga ñëw salle bi lan leen mën a làq suñu liggéey en même temps tamit saa bu nekk suñu liggéey la quoi bu sóodee pour mu dee yëpp quoi képp ku bëgg ma koo formé ci yéen a entraîné waaw mbay nag boo sewla ñu ñëw fii nii dañ ne rek laa ci xam dañuy ñëw fii te en même temps loolu ñëwul fii fi ñuy wax jaar moo ko yoroon tamit kenn ko changé yëpp waaw loolu quoi gis ngeen ne gis ngeen ne moniteur bi bi nga ñëwee gis naa liggéey rek moo fi amoon tey mbaaw dëgg la waaw mu ngi noonu moniteur ngi noonu dèjà zoo zoo mooy kii mooy zoo mooy moniteur mu ngi noonu waaw zoo bi noonu kii mooy moniteur <laughs> mais Mbaye salle bi yaa ngi liggéey de ah <laughs> ah salle noo gisee salle ak matériel yi matériel <laughs> li ma koy def mais damaa ñëw fii daj lu métti. kon moom li ma def lu ëpp si ñettam. waaw kañ ku dul Pawlish Mbaye sax. xool kañ ci Ama li xaj. Hmm. comme hmm. na dem waaw man maa ngi liggéey damay liggéey. depuis ma laalee signature signature contrat moom lekk na dégg naa mi ngi lekk xaalis jàmm rek ak dinawul deful dara di taxawaay. di a daw parce que su ma gisee nii état ma nekk dina mais barke alxuraan karim du daw. du daw parce que signé na xaalis jàmm Habib directeur l'écran promoteur bi du ay xale la ñu a jàppale ñu ñoo ko a jàppale kon liggéey samedi incha allah. na ñëpp ñëw stade daj ñu ci yomb ya 2000 rek la 2000 5000 na ñëpp ñëw comprendre nga képp kuy soppay mbay waaw man nag fee laa déparé fii laa déparé waaw après presse parcelle laa koy defee waaw waaw moo xooli samedi samedi naanal taxawal champion tëlmul tëlmul aka demal waaw moniteur baa ngi noonu rek lii moom boo ñëwee dañ lay ci kot ñu ngi fii ci yow boo jàggee almax bi rek première intersection nga ñëw allah ah, waaw waaw mu ngi tër oh fii la mën a yem wàccal mhm. bu baax

am ay nitam waaye saal bu baax baa ngi fii ci yoon waaw li war moniteur mu ñëw jege la moniteur waaw mais Mbaye. Mm-hmm. maa la fekk ci benn kër nga toog de nu mu demee noonu. waaw ah, fii mooy kër jaar jaar PDG. clic 221. comprendre ku baax la ku yaatu la. Mm-hmm. salle bi nga xam ne dañu ma ñëwal fii di reposé wu. comprendre nga gis nga ñu mm-hmm. bu baax laa jël ay supp la may toggal ah dibi la toggal soos li ma demoon yëpp mi ma koy toggal jaar kenn du moom sa xarit. nga. mais saa fi nekk nii sàllaajam yi maa ngi ko dem entraîné ji fi nekk déw ma ay jéeg déw ma fenn sàllaajam yëkkat si weñ yi parce que maa ngi lekk yàpp maa ngi naan meew maa ngi naan ay euh, tee te tee bu baax laay naan ah, kon combat bi ah, saal nga jëm après waaw saal laa jëm nii am naa si ah, yaakaar jaar moom ko euh, fayal su nekk nii nag di gërëm ñëpp Sénégal yëpp nañ ma ñaanal nañ ma jàppale comprendre nga nañ ma jàppale ñu ñaanal ma kii nag mooy sama kër si bi nga xam ne moom moom ma su ma nekkee si forme xam na su ma nekkee man naxuma Sénégalais yi. Pawlish demal bëri sa biir bi xam nga man nga biir a def sa biir bi dama sa biir bi man mbër mbër bu sa biir nga xam naa la yem loo xamante doo ko attan nañ dem Sall. Mhm. taw taw ma ñu dem Sall. waaw mbër. waaw dafa mel li nga xam ne mooy Sall. pare nañu à 100 pour 100 nag. sans lu des moom xam naa ay quelques réglages rek nga xaar sànni incha allah waaw te dinañ xam. mooy relax bi mu ngi noonu mooy relax bi tamit tax na rek mooy relax bi day taal bi moniteur yu baax la macha allah. moniteur yu baax la macha allah. donc rek ndox bi la noonu doxal rek doxal ba daw doxal instant relax la pour ñu am ko quoi rek waaw ñu daw noonu. mais taw nga ko def lépp dox bi la rek waaw kër def la rek sa mëntoor dee ko rek ñu ngi fii ci salle bi bay mu ngi préparé combat ak Pawlish fi lay nga xam ne mooy jaara kilib Dakar 221 moo ko fayal salle spéciale bu muy entraîné Mbaye ngi noonu di commencé entraîné di préparé combat am samedi nag ak Pawlish Mbaye fële ca stade sànq. waaw. waaw léegi ak Pawlish. combat bi samedi la arena stade arena bu Pikine waaw stade arena bu Pikine moo Pawlish Mbaye Mbaye sigil waaw waaw Mbaye ngi liggéey de man lii muy vélo xam nga ne lii muy vélo hmm, tànk yi xëjul ci Pawlish waaye ma ne lii muy vélo xëjul ci Pawlish liggéey rek xaw ma combat da ngay liggéey ñu ngi nii saal mbay gi nii saal di vélo instant yi nii pour defar xam nga mooy tànk yi mu ngi commencé ñàkk mu ngi ubbi mu kii bi dafa commencé ñàkk day commencé ñàkk saal bi ngi nii mooy moniteur mu ngi noonu champion la macha allah mu ngi noonu di wax mbay loolu noonu saal bu baax baa ngi nii muy fitness saal bu baax baa ngi noonu macha allah fii ci yow yow mu ngi noonu waaye ngi noonu pareegul ba léegi de macha allah waaw mu ngi noonu de ñu ngi koy wan li nga xam ne war a def war a kure mu ngi noonu pare buñ de ñu ngi noonu ba léegi mbay nank rek ci tabla bul sa moniteur nangal nañ ba maa Tamam. acca Ablaye Mbaye ngi liggéey Pawlish Mbaye ngi liggéey de xaw ma ne yaa ngi liggéey xaw ma liggéey waaye am nga tàkk am nga am nga combat de waaw waaw Thank you. D'abord. acca. Laye Mbaye ngi liggéey Pawlish Mbaye ngi liggéey de xaw ma ne yaay liggéey xaw ma liggéey waaye xam nga tàkkusaan bu nekk waaye samedi samedi di nga xam ne lépp dëgg la. चेहरे को वोट تمام moo ngi noonu di vélo ànd ak ki nga xam ne mooy champion ko yor kontaagam mbërëb moo yor kontaagam mu ngi noonu tey fii mu ngi nii saal bi macha allah di entraîné mbay ko sama ngi noonu moniteur baa koy teg ci code essence yi bi ñëwee mu demee fajar la demoon nga xam ne mooy euh, terrain daw yi ñëw kon def contact ñëw def saal ñëw saal tuuti def ay affaire combat bi du yomb de nga xam ne lépp dëgg la nga xam ne mbay du Ouzin Keita de di ci mbay du ci Ouzin Keita tey mu xam ne lépp dëgg la waaye nag man dama xamul Maar Yaasin lay far Maar te ñaari booy ñooy wër Wally Ballago ñaari booy ñooy wër xaw ma fan lay far nag. bay ngi liggéey de xam nga lii contact bii. Hmm. yombul de moniteur am a ngi fii di ko teg ci kot bu baax. bu paree am na lu mu war ko rek moniteur baa ngi na la xaar liggéey mu ngi ñàkk. waaw waaw liggéey rek. Mm-hmm. jafandu tuma yabbo di la ñaanal yu yaay naqareeru dara Pique, pique no pinhais te